اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الإمام سبقنا طلاق بالعقلان إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على محمد الفاتح الإمام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

ñamoon ñoo bëgg a jàngal la kaamil bëggoon ko ubbil leen ko. Amin.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 تحفظك في صحة وفي غنى حتى تحقق المنى يا مرحبا يا رب صليا على المختار وآله وصحبه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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني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 nga xam ne fii ci barab bi ci kanam xaadimatul quran moo daan wax ne jox leen cheikh mu jàng kon nag dafay firndeel ne yaay booy mi ngi fi ba léegi jugu fi ndax lii rekk la tënkee mbooloo bi mooy waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu te ci loolu lañ nekk boobu ba léegi ziyaare bi nag association mamasu Soodianka ñoo ko daan faral di defal sunu yaay sunu sëriñ Cheikha Mariam Xaadimatul Quran mu toog ak ñun fii yaakaar naa biñ fi mujj def sax ku koy fàttali bi ziyaare bi jeexee dañ koy wax yàbbu yu jugal mu ne jeexagut de ñu ne ko ankañ jeex na nit ñaa ngi dem mu ne déedéet mu toog fii waaye bés boobu ñu amoon dégg-dégg man tey laa doog a xam kerek lan la doon wax ndax kerek yàgg na lool fii nii sunu yaay ji di tata asikan ñëw ne ko yaaboy nit ñëpp dem nañ jugal mu ne ko déedéet jeexagut xam naa ne jour boobu moo nekkoon tàggoog ñun ci jataay bii nii tàggoog ñun ci jataay bi waaye tàggoowut ak ñun ci jëfam tàggoowut ak ñun ci jàngaleem tàggoowut ak ñun ci yaram bés bi 8 mars lañ ko doon def ren yàlla def ñi yéex koo jàpp lool ndax yi nga xam ne moo xewoon ci at yi passé yépp ci loolu nag ñi ne kon ren dañ koy def waaye insha allahu rabbi na ko ñépp pareel di ko waajal xam ne nit ñaa ngi màggal ñeneen ñoo xamante nii duñ wax ne jaruñoo màggal mais ku am ku mel ni xaadimatul quran mu jël alquran def ko ci bopp benn xale bu ndaw kooku sotti ko ci beneen xale kooku sotti ko ci beneen xale ba ci xale yi toog am na ñoo xam ne eh, buñ demee ba yàlla may leen njaboot ñi ngi pare wu ne ñoom alxuraan ji yaay booy defoon ci ñoom moom la ñuy sotti ci ñeneen. Eh, maa ngi keroog di wax ak benn waaye maa ngi ko seetaan ci télé bi mu ne nañuy màggal jigéen ñi ndeer ma ne ah bu ci suma maam nekkoon de bu ma xamee bàmmeelam danaa dem dóor ko birig parce que lu tax loolu. dañ ñooy def dara ñu dañuy taal suñu bopp bés bu set nga gis nit ku ñuy forcer pour def ko dara te taalul boppam ndax tey boo muñee yàlla génnee la ci nattu boobu suba yàlla mën na laa indil doom yoo xam ne yow li nga doon bañ dootu amati kon soo amee ku ñuy màggal dañuy màggal jigéen ju mel ni Cheikha Mariam Xaadimatul Quran moom defar na ay junney junne te xaruwut waxu leen ñi xaru defar na ay junney junne ci lan ci yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nag ku am loolu balaa ngay dem di màggal keneen dëgg-dëgg am nga koo màggal balaa ngay dem di jëli ay référence ci keneen dëgg-dëgg am na foo ko jëlee balaa ngay dem di jëli ay leçon ci leneen dëgg-dëgg am na foo ko jëlee te léegi bi ñuy commencé eh, yaa ngi dégg vidéo bi ñu ne ko sa njaboot dañoo jàngoon alxuraan bugg nga tëjal leen waaw ku am koo xam ne bés bu set mi ngi tëj alxuraan bët bu set mi ngi tijji alxuraan te ni mu ko tëjee ci téléphone bi noonu la ko daan tijjee ci téléphone bi keneen mën naa am léegi vidéo boo xam ne mi ngi tijji kaamil bi kon itteem yëpp loolu la woon yal nañu ko yàlla fayal buñ toogoon fii ba suba di wax ku mel ni xaadimatul quran amul damay faral di wax ma ne leen li ma li ma li ma yaay booy saydaa neexee lenn la mooy ne moom benn nit rek la bëgg ci kaw suuf moom lay roy mooy Cheikh Ibrahim Niass jéemut ut keneen xamul leneen toppul keneen fépp fu ñu la wax ne la Cheikh Ibrahim Niass jaaroon na fa moom ci noonu lay jaar bàyyi alquran moo nekkoon karaamam mais xaadimatul quran alquran moo nekkoon karaamam boo ñëwee ci moom sax ngeen di waxtaan boo déggul alquran léegi-léegi bu la waxee benn aaya xamal mun a cam toppal fële yow xale yi jigéen yi ndaw yi sax mën nañu xam li may wax kon moom ku mel ni moom bu la yàlla booleek moom dangaa war a sant yàlla fayal xaadimatul euh, quran waaye tamit yal nañu yàlla fayal laa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi nga xamante ni dëgg dëgg kenn kenn kenn mënta nekk waajuru xaadimatul quran ku dul ñaari soxna yu sell yooyu noonu mooy ñu dul ñaari ñu sell yooyu muy Cheikh Ibrahima Niass ak sunu maam Aïchatou Sarr ni nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass kenn mënta nekk waajuram lu dul maam Alaaji Abdoulaye ak sunu maam Aïchatou Dianka sunu maam Aïchatou Dianka moomu nga xam ne mooy waajuram tey sëtam moo toog fii di Seyda Mbaye ak Diankha di ñu waxtaanal ci jigéen ak nan la war a mel ak yaru Cheikha Mariam ci jigéen Cheikha Mariam man fekkee naa nit ñëw fii nii muy waxtaan ak moom di waxtaan ak moom di kaf ak moom ba kooku naan koy waaye maam yow yaa xoromu mu ne ko bul ma waxati maam mu ne ko demaat ba ci kanam mu ne ko maam mu ne ko yaay booy Seyda man man du ma meer bi ngeen ne ndaw si ne ma meer bi moo am xorom mu ne moom du ma ne ko waaw du maire bi nga foog waaye moom yaay la yaay lay nekk mu ne ma man de wax dëgg yàlla bi ma koy xam am na yu bëri dama cee nekkoon waaye bi ma toogeet moom di waxtaan ak moom dama koo ñeme ba nga xam ne yu bëri génn naa ci léegi kon moom daf daan jàngale ci waxam bay defal ñu bëree bëri am na yu bëri yoo xam ne duñ ci dugagum ndax euh, conférencier bi mën naa am mbax soom loolu la ko jox te euh, nit doo ko wax defal ma euh, conférence mu dem gëstu yi gëstu ñëw nga bëgg koo jiitu ci loolu waaye ku ci nekk ci ñun rek ñu toogoon fii di wax bu suba ci Cheikha Mariam ku ci nekk rek am na loo xam ne yow ak moom la rek keneen fekkewu ko mu jaar ak yow ci jaar-jaar yooyu noonu kon nag ñi ngi gërëm bu baax association Mame Astou Diankha di leen wax nag lii bum mu dakkati insha allahu rabbi corona jeex na te yàlla bu corona ñëwati yàlla bu lu mel ni corona ñëwati ci àdduna bi yépp ndax bëri na lu yàqu ci àdduna bi corona moo ko yàq waaye 8 mars bi day continuer dañuy jox Seyda Mbaye Diankha mu indil ñi li nga xam ne nii moom la gëstu ñu jàng ci suñu paree eh, ñuy jox Cheikh Tidiane Ben Omar Kane mu wax ci turu ñëpp ñaanal ñi ñoo ngi ñaan nag ñi fi nekk ñëpp nañ génne addi xadimatul quran ndax bu fi nekkaan dañ ko daan def nañ génne nit ñi ñëwuñ pour ne dañuy ñëw pour indi addiye wala wala ñoom ñiy laaj addiye waaye dañoo ñëw ñun ñoo am luñ bëgg te ku bëgg dara da ngay def dara kon dañuy jox Seyda Mbayang mu commencé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 سيد الأولين والآخرين الخائل النساء وحرمات لا يقيمهن إلا للكريم ولا يلهن إلا للهند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنه أنا خطب المكتوم صاحب الطريقة التجانية مولانا أحمد بن محمد تجان wa an waarisi sirrihi wa xalifatihi mawlana cheikhul islam alhaji wa barakatil anam cheikhul alhaji ibrahima ñas ibnu abdullahi tijaniya يا إمة الشيخ أحد لنا بهذا البحر وارتحت فيه بنصر تصل لنا بسفر أيها المستمعين وال... أيها المستمعين الكرام الحاضرين والحاضرات al ixwa fillah uxayyikum bi taxiyatil islam taxiyatu min ahli janna wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu baada taxiya wa ixtiraam qad jamaana al yowma fi lmajlis li xadrati ljumaa wa baadi nuxaadis ala an ummina wa cheikhina ummaslina yaay cheikha yaay booy xaadimatul quran sayda mariam bintu cheikhul islam alaaji ibrahima Niass gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam sant suñu sëriñ Maolana Cheikh Ahmad Tidiane ak uh, suñu maam suñu sëriñ El Hadj a Niass di bàyyi ñëpp xam naa dafa xaw a guddi te dañoo xëcc dañuy tënk tey dañ fi woon ngir ziar ak xadratul jumaa bëgg a fàttali ko tamit ndax fa zakir fa inna zikra tanful mu'min del fàttali ndax fàttali day jëriñ ab jullit ku gëm yàlla yaay booy nag kenn du ko fàtte sax ba koy fàttaliku kulli yow mi ngi ci suñu xel yi suñu xalaat yi ñu ngi koy roy di ko toppandoo ah bi ñu nuyoo suñu xalifa Cheikh Mahi Ibrahima si yàlla na fi yàgg lool te wér teg ci mu masilam fii Dakar représentant am Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ñaan yàlla yàlla yokk wéram ak gudd faram imaam ratib ñu ngi koy nuyu moom tamit di ñaan yàlla yokk wéram guddal fanam ñu ngi fi teew ci ndigalal suñu marraine ndey Aysatu Ibrahima Niass ndax lii ci moom moo ñu ko sant mooy marraine bi ne ñu comme moom mi ngi Kaolack di présenter journée maam Astou Diankh yaay booy Seyda di magam te ku ne xam ne ne bu ñuy sargal jigéen defe naa ne ku yegsi ci yaay booy da koy taxaw mu ne kon féetale naa leen yaay booy foofu yéen amaat ngeen di dem di ko sargal ci 8 mars xam nga njabootu baay yëpp macha allah. li li bàyyi ne moom fi yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon tànkam lay teg tànk bu doxee mu dox bu taxawee moom amatul taxaw njabootu baay aussi noonu la ñu mel ci baay xolal baay bi muy mawlit madinatil madinat Kaolack euh, rabiul awal bi nga xam ne chahru avril dafa ñëw muy mois de avril di gane àddina yonent bi alayhi salaatu salaam daf ne yéen waa Dakar comme moom ay ay ay ay tubaab ngeen di nuru du nekk tubaab nag moom ñaanuñu ko yàlla <laughs> waaye daf ñoo féetale 20 avril rais bi toog nii ñu ngi koy nuyu moom tamit euh, jamiyat ansar din di alhaji Barham Seck ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar mu féetale jamiyatu ansar din ne ñu yéen 20 avril bi yéen a ko moom foofu ci jëppal ni ñuy mawlidee euh, rabiul awal ca Medina moom tam noonu la cërale rab euh, weeru avril fii di gane àddina yonent bi ci weeru tubaab milaadiya moo tax yàlla ay da moom itam na muy sargale ni muy defee jote maam Asta Diankha ca lew na ñeseen noonu la ñu sante ñun tamit ñu koy defee fii ci yaay booy ñun 8 mars bi nga xamante ne dañ ne mooy weeru jigéen ñi kon gannaaw ndigalal yaay day ayda moomu tamit Cheikh Mouhamad Baba kii Mouhamad Baye Lamine moom itam mooy suñu président d'honneur moom itam ci ndigalam waaye ku ne xam na ne mooy tax xadara ba fee ca kër papaam waaye nag xelam ak xolam yépp mu ngi teew Seydaaro xeetu Thiam moom mooy raïsa bi mooy présidente bi moom tamit dafa xaw a génn euh, senegal waaye xelam ak xolam yépp mu ngi fi te lii yépp moom itam ci xalaatam la moom itam moo ñu fi yebal moom it mi ngi leen di jottali nuyoo fa mu nekk tey nga xamul lu fay liggéey ndax xelam yépp a ngi fii ndax bëgg a teew ndax da daan teew gannaaw maa ngi nuyu sama sëriñ bi toog dendeeg man di sama sëriñ di sama sang di sama rakk ju baax Cheikh Abdoulaye Mouhamadul Amin Ibrahima Niass ma xam ko lool nag ca ba muy nekk étudiant nga xam ne booba dóor matt booba jamono neex na de waaye moom lu mu xamoon jàng nelaw dama daan taseeg moom moom a njëkk yóbbu yóbbu bay moom a njëkk wutal wutal visa bay man la lam yashkuri naasa la yashkuri laa ku santu nit doo sant yàlla ñuy mbëkkante màkk ndax man yaa booy mooy sama royukaay dama koy toppandoo ci lépp nag ci fépp boo xoolee ay jaar-jaaram rek mënumaa mel ni moom nag ndax mooy doomi Cheikh Ibrahima Niass waaye nag ku nekk la neex nga bëgg ko sañ nga koo toppandoo damay toppandoo yaay booy ñu tase ca màkk mu ne ma Seyda yow dangaa sonn xoolal fii ngay ñëw fii amul dara xaar ma utal la visa nga ñëw Dubai ma ne fuy Dubai boobu Dubai melul nii nag Dubai booba tamit bokkut ak Dubai bii may dégg ci internet bi lu ne ñu koy nettali booba jamono moom defe naa Dubai amul ma ne ko luy Dubai ma defe ne caaxaan la weeru koor rek mu yónnee ma visa bi ma yegg mu teertu ma mu ne ma man na xaw ma yii de ndeysaan waaye boole maa ko xam jàmm yooyu ñuy wër di xamu ko ndax moom jàng moo ko fa yóbbu jàng ñëw dugg ci néegam waaye laa biir ak bëgg alxuraan ba kuy nekk ci alxuraan rek Cheikh Abdoulaye nuru na loolu maamam da lay bëgg dimbali moo tax mu invité ma Dubaï ma dem wax dëgg yàlla kon dama koy sant di ko gërëm ndax nit nag bu defee lu baax dañ koy waxal yàlla ci boppam soxlawul ngërëm waaye moo ne la in shakartum la azidannakum soo ngeen ma santee ma dolli leen te yàlla suñ ngërëm jëriñu ko dara kon maa ngi koy sant Niass Coumba Abdoulaye jaar nga sa tànku maam jaar nga sa tànki papa baaba bu weeru koor daan ñëw day yokk mat yi lépp lu ne ci kër gi da koy yokk ndax kontaan gan ji ñëw xataa gan ñi nekkul taalibe bàyyi sax ñoo fa daan ëpp lekk géeg yépp ba ci armal yi sax baaba da koy jëndal nit ñi kon ñes noonu rek nga mun a mel gannaaw loolu nag li ñu fi indi tey mooy tënk yaay booy moom comme ni ko président waxee rek ku ne mën na wax ci moom te du jeex géej la macha allah kenn ku ne am na loo seq moom am na loo xam ca moom ku nekk bu la joxoon micro bi mën nga cee fanaana wax ba bët set te du jeex ñu jox keneen fa zalik waaye kan mooy yaay booy moomu Cheikha Mariam Sayda xaadimatul Qur'an ni bàyyi di déggee bàyyi ci àddina bi yépp léegi nag ku nekk jóg am na ñuy wax bàyyi diw bàyyi waaye bàyyi rek a doon bàyyi te ba tey mooy bàyyi te ëllëg it mooy bàyyi rek noonu la yaay booy kasaalika nekkee yaay booy ilal abad yaay booy rek ngay dégg Cheikha xaadimatul Qur'an yaay boobu moomu El Hadji Ibrahima Niass ñu naan ko bàyyi mooy waajuram bu góor yaay booy moomu soxna Astu Saar mooy waajuram bu jigéen ne nañ mi ngi gane àddina 1932 ca fan Kosi ca kër baay nga nekk Kosi ca bustaanul arifin Kossy defe naa ne il faut ñu taxaw fi lan mooy Kossy am na kaset bu ma Seyda Asiyatu jox may di ci déglu yaay booy mu ne Kossy dégg na ci bàyyi mu ne Kossy dëkku ñaanukaay la man mii man mbay jànq xam naa ci daaw saa yu ma amee problème wallaahi tallaahi jël naa oto dem Kossy dugg ci néeg maam astuba te lu ma fa sa ñaan gis naa ko du benn yoon nag du ñaar yoon su ma bëggee doom ju tukki fa laay dem ñaan ko ne bu gënee li ma am bariwul tukki nañ keroog bi sama taaw bi góor bi amee problème ca Espagne mu woo ma téléphone wax ma ko déw ma ci kenn damaa dal di jël fii oto direct jaar ca xabru ba continuer koosi tëju fa ñaan ba ma dellu see macha allah. man de xam naa dara ci Kossy man ñemewu maa gàmm ba ba set rek ma jëlaat oto ñibbi si Dakar te dew loolu gëj naa koo def yàgg na lool heure bu ma gàmmoo ba set dem naa Kossy ziar ñibbi kon Kossy dara fa daanaa dégg ci euh, Cheikh Mamoul tamit muy wax ne mësul tukki a demul Kossy ziar tàggoo ji daanaa ko dégg ca moom mu koy wax kon Kossy nekk maam asu jànq booba kon dara nga fa comme ni ko yaay booy wax kon nag yaay booy bu gënee àddina koosi ngóot la koosi du neen faydu bi fan la tàkkee fan lañ xamee baay fan la kaas bi feesee bay tuuru loolu koosi la kon sama doom yi wala sama rakk yi ñi ko ci xamutoon nañ xam ne koosi dara nga fa yaay booy bi mu gënee àddina koosi yaroo ñeseen ci tënk rek bi mu amee juróomi at lañ la ko waajuram dugal daara alxuraan muy jàng sawar ca lool te bëgg ko lool dégg naa baaba di nett ba tey nee na ba muy nekk tuut tànk foo fekk yaay booy xalima moom la xale yi tuddee big xalima jamono yooyu xalima mooy am ci daa nga koy sëpp di bind mun ngi koy roof foo ko fekk rek mu ngi koy roof ci noppam bi ba dégg naa waajuram bi ñuy wax soxna Aysatu Saar sax nee na ko Seydaam yow Mariama fuñ la fekk rek yaa ngi yor xalima rek sa liggéey bi sax taloo ko maa ngi dégg ci nettali baaba mu ne jigéen bi amoon gis-gis na ko kii de loolu moo lay wane day tabax alxuraan kon kooka gis-gisam bu waxam jooja tey daa ji ñiy toog tekki na ko yaay booy mu mokkal alxuraan ci daara Muhammad Rabbani fa la jàngee alxuraan doomi baay yu bari tamit fa lañ dalee ne na ñetti fan ci la tari baaxara ba naasi jour ñetti fan yooyu dina tari ñaar fukki xisib boo ko boolee muy 60 xisib sittina xisban ca kanam waajuram wi ak commission bi loolu yombut tey ci jigéen surtout surtout jamono yooyu nag ne na Maolana Cheikh Islam jox ko kàddu yu bari neexal ko ni ki xar ni ki fas ni ki nag ak yeneen yu bari yu nit munta bégal ko ndax loolu mu def raaroon na ci jamono boobu yaay booy Seyda Mariama bi mu mokkalee alxuraan ba pare mu ne daana ànd ak bàyyi di tukki moo tax sa sa sopp nañ waajur buy dem jumaa wala muy dem jàkka wala muy seeti mbokkam di ziyaare ngay ànd ak sa doom ndax loolu da koy jàngal lu bari daf koy xamal lu bari bàyyi lim daan def daf nekkoon li nga xamante ne lettre lay nekk ci nit ñi pour ñu ko ciy roy ndax booy tukki tey di ànd ak sa doom di nga ko jàngal tukki di nga ko xamal ay mbokkam sooy dem jumaa dina ko tàmmee jumaa lépp looy def lu baax rek day ci ànd ak sa doom ndax suñu sëriñ noonu la daan def yaay booy moomu bi mu ma tee dugg néeg ñu may ko boroom këram mu ñëw dakaar ci tënk rek bi mu ñëwee Dakar mënoon na indi taalibe mu koy liggéeyal mënoon naa am lu mu fayee jànq waaye ba tey baay daf na ko soo demee na liggéeyal sa bopp ndax nga mën a am résultat ku liggéeyul doo jariñu muy liggéeyal boppam boole koog daara ji dégg naa muy nettali ne comme tout tànk la woon noonu te ci daara la yaroo ñu defe ne mënut waañ mu yegsi rek magam yi mu fekk ci kër ga daal na ko tey de yaay jël ndeysaan dafa dafa comme ni ni di président wax nag oustaz dafa kii yaa booy dafa xorom woon nag ne waaye ba ma toggee ba taaj dañoo mujj di ma booleeg seen doom yi ñuy xool nu may composé <laughs> ndax togg ko neex <laughs> ndeysaan togg ga neex lool macha allah bañ koy booleek ay xale pour pour ñuy roy na muy composé nee na togg gi kon mu ma ne ñaari bool yépp tey kër googa ci biir néegu biiram te balaa loolu sax moom dafa yàgg bëgg jàngale ndax nee na biir néegu ya biir néegu yaayam fa la daan jàngale xale yu ndaw yi bu ñu wàccee école kon moom yàgg naa bëgg ci ñi gën ci nit ñi comme ni ko alayhi salaatu wasalaam waxee xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki xam alqur'an te di ko xamle yaay booy balaa muy mat sax di ñëw fii fekk na mu ngi foyantoo jàngale bu sëriñu daara ba di génn moom lay dénk daara ja mooy jàngal xale yi kon kooku dafa yàgg bëgg alxuraan ba tax na foofu li ko Baye waxoon ba tey li Baye ne man de yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek laay roy su doxee ma dox bu taxawee amatuma fu may jëm alayhi salaatu wasalaam keroog ba mu mayee Fatimatu bintu Rasul Seydina Ali ibn Abi Talib liggéey ba metti lool su Fatima ñëwee si papaam na ko man de damaa bëgg nga wutal ma ku may dimbala ci kër gi ndax liggéey bi dafa métti daf na ko déedéet demal nga liggéey nga jaamu ndax nga am doom ju nekk sëng kon xoolal loolu ni mu dëppoo ba tey ak yonent bi ni mu ni mu ni mu digale woon sayda rek noon la alayhi salaatu wasalaam tamit digalee Fatima mu nekkee ko këram pourtant de ku ne xam na ne Fatima manoon na am ku koy liggéeyal waaye bi Fatima ñëwatee ba ñëw daf ne ko dee def subhanallah walhamdulillah akbar fanweer fanweeri yoon ak ñett su ko defee xëy na doo yëg yenn coono yi waaye wut musu koo utal ku koy ku koy jàppale ci kër ga bàyyi moo tax bu ne man de fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dox rek maa ngi ci gannaawam bu taxawee man amatuma fu may jëm loolu firndeel na ko ci fànn yu bari tey buñ ci doon waxtaan ah yaay booy lim wax ne na nag tàmbali du yomb tàmbali du yomb foofa ca Mali ba mu fa tàmbalee ci biir néegam booba di jàngale ne na mu fees mu ñëw ci peron bi ne mu fees ba boroom këram di génn biroom jox ko ko mu di fa jàngale jàngale dafa métti début surtout te booba léegi sax ni ñu joxee gëdd alxuraan booba joxewuñ ko woon gëdd alxuraan ndax booba ku fay 150 fanweeri dërëm rek yaakaar nga ne yow yaa ngi fayu sëriñu daara bi wala ngay joxe alal ba juróomi dërëm xam nga kon ku ca dajale woon ay xale ca jamono yooyu def ko sa yitte demoo xew demoo céet demoo benn fenn fenn demoo seeti taalibe mu jox la àddee lu may toog ci tuut tànk yi rek ngeen di yaakaar àllarba yooyu kon danga daan jaayanteeg yàlla say daal loolu la dund ba tey la ko bàyyam waxoo li ko fi fekk yépp fekk ko fi mas naa dem umra damay wax ne man man damaa yàgg di toppandoo yaay booy dama ko yàgg bëgg ma dem màkka mu metti torop ma ñàkk xaalis aj jot rahmatullahi alay kii euh, Seydina Cissé ma ne ko nanga fexe ba sama borom kër na xam fi ngay dal nga ñëw andil ma xaalis mu ne ma yow de Seyda man di yow jaaxal ma yow laa gis ku nekk màkk di laaj xaalis Sénégal mu ñëw ma ne aw ma fi dërëm de <laughs> si la ma kii dama woon ah yow de jàngata yaa booy de taxaw na fii benn bés alxuraan rek ay tax mu jooy lu mu yóbbu ca daaraam ja tekki ooram yi jaay nit ñi dañu dem màkk di jëndi or mais yaay booy moom day dem jaay ñëw def ci daara ji mu ne ma jooy na ndax ñàkk xaalis fii jël oram jaay ko ngir lu mu yóbbu ca daara ji kon te yow boo yónnee senegal ne nañ la nañ la fa yónnee xaalis te nga nekk màkk léegi de moom dafa mel ni yaa ngi bëgg a jege sa yaay ma ne alhamdulilah kon kontaan naa xam naa du ma egg fa mu egg waaye dinaa ko jege kooku mooy yaay booy kon nga xam ne métti woon na début ba moo tax tamit yàlla may na ko ci ndam yàlla may na ko ci ndam ci loolu ndax baayam ba ci boppam dafa bëggoon alxuraan bëgg alxuraan googu mu bëggoon alxuraan njabootam yépp nag wax dëgg yàlla xaafis lañ macha allah tari nañ mokkal nañ bëgg nañ ko waaye yaay booy de cee raw surtout fi mu ko wonee ci capital bi mu jafe fi lool di di di di dëkk boo xam ne dëkk euh, puugare la mu ñëw woon yépp ginnaaw jox boppam alxuraan ba naar ba ci boppam ne ko yow mii de dama xam ne bu ma ko dee nekk di ko liir araab di ko firi day jël temps te dafa xaw guddi te ñu fi war a jël parole bari na sama sëriñ ña ngi toog bàyyi fa ndongo ya ku ne xam ne ne borom daara boo wanee gannaaw sa xel fa ne loo am ñu la fa nekkal yépp du la doy waaw naar ba yow de yaa doon cër bi gën a rëy ci sa baay muy alxuraan ndax baay ci boppam moo ñaanoon yàlla nag ma defal alxuraan mu nekk sama kiraama bàyyi moo ne woon yàlla defal ma alxuraan mu nekk sama kiraama loolu defe naa ne tey ñëpp gis nañ ko lu baax nag lañuy toppandoo moo tax lu baax loolu tey law waaye amoon na jamono raar na trop yaay booy moo njëkk a génne xale mu dem defi mu saabaxa xaarija buldaanul arab euh, concours concours alxuraan yi bii yaay booy moo njëkk a xalem média yi boobu nag demewuñ nii te saarewuñ ko comme nii mais xalem dem na defi konkuur ba tàyyi jël fa ay prix te muy jigéen man daanaa dégg sànq dégg ña waaw moom nag moom lu ñëw rek moom mooy dem xanaa moom ko ma ne leen xam ngeen fu mu jaar bay dem jaar leen fi mu jaar def leen ni mu def naa de kat ñoom xamuñu ko ko toog sa néeg rek tëju mais moom lii daf ko liggéey baaba moo naan yaay booy lu bàyyiwul góor lu mu war a def bàyyiwul jigéen lu mu war a def lépp lu góor di def yaay booy da ko daan ñafe ba am ko lépp lu góor di kazaalika kooku mooy Seyda Mariama mësul ne bu doon bu ma doon góor déedéet dafa mës a gëm boppam ne lu góor mën a def rek comme ni ko alxuraan waxee rek jigéen war na ko mën a def. concours yooyu moo ci njëkk a am ñu cay dem di ci indi ndam boobu nag média yi bariwuñ comme nii média yi bariwuñ comme nii. suñu sëriñ ba daal Cheikh. moo ne woon ee yéen jigéen ñi rëj lañ loo dig leen ak góor ñi yaa ayyuhal banaat zahim na ila naylil huda ula amma bi ab daan fala rëj lañ loo googu nag tey jii ci Sénégal comme ni ko président waxee ñu naa dañuy sargal jigéen di ndeer ma ne duma sargal ku taxaw di lakk sa bopp lakk sa bopp yonent yi alayhi salaatu wasalaam ñoo ëppoon nattu mais kenn mosu ci woon a xaw dangay ànd ak muñ inna laaha maa saabirina yàlla nee na maa ngi ànd ak kuy muñ olof ne ku muñ muñ lu mu métti métti dañ daan muñ ba ndam ñëw woote ba kenn ku nekk tey la nga doon woote macha allah waaye munoo muñ imaan moo fa amutoon ay ceddo lañu woon rek ay ceddo lañu woon moo tax ñu lakk seen bopp ñeneen ñi ñuy tudd fii bu kii jotee ñuy invité woykat yi ak nangam nangam yi déedéet dañu war a mel xool ku mel ni yaa mii li mu liggéey walla njabootu Maolana Cheikh Ibrahima yu jigéen yépp nag man am na benn téere boo xam ne yaa doxee te bàyyi ko ko ko bind lu ci ëpp sama waxtaan ci foofu laa koy jëlee moo ko taalif roqee te bàyyi yaa ndey ay da heure boo xoolee loxom bi yaa ngi fay fekk mushaf ñoom ñépp njabootu bàyyi jigéen ñépp royukaay lañ ñëpp nag royukaay lañ ñëpp xaafisaat la kon am na ñun roy rawatina nag ñun taalibe bàyyi am nañ ñun toppandoo am nañ ñu xool man de dama leen di toppandoo te dama leen bëgg te dama leen di roy fi yaay booy say daa teg tànkam daal ni bàyyi waxee woon na teg naa sama tànk fi yónent bi teg tànkam yaay booy jël tànkam teg ko fi bàyyi tegoon tànkam man mii sama tànk foofu laa ko fas na teg yal na ma ko yàlla may may ko képp ku ko bëgg moo tax rëj rëj la googu yéen jigéen ñi rëj rëj la leen la bàyyi waxoon waaye waxuma ci ay yarami neen waxuma ci ay takkaay waxuma ci ay taar waxuma ci ay maquillage ci bëgg lu baax def lu baax yar njaboot gi ci lu baax bañ tegu ci siraatal mustaqim ba keroog yowmal xiyaam bu ñu tasee Maulana Cheikh du ñu sëgg kon loolu mooy rëj rëjloo ba bàyyi waxoon waaye yeneen yépp caaxaan la beneen rëj loolu bu mu doon rek amul njëriñ yaay booy dafa liggéeyal alxuraan ba tuddee boppam xaadimatul xuraan xaadima boobu da ko waxe jëfe ko doxinam waxinam yépp alxuraan la ba baabaa ngi naan am na koo xam ne sax daf koo tuddee euh, koo xamante ne danaan kàllaamu euh, mooy jigéen ji nga xamante ne waxam yépp alxuraan la kooku mooy Seyda Mariam Seyda Mariam tëbul rek ñu ne ko xaadimatul quran déedéet daf koo liggéey wane ko ci fit ci jëf ci wax foofu yépp la ko wane yaa booy Seyda am na benn association bi fii Dakar ay jigéen ñoom itam ay daara lañ yore ñu tuddee seen bopp xaadimaatul quran ma ne ah turu yaay booy bi mu ngi bëgg a law moom de moo njëkk a wax ne xaadimatul quraan kon bu mbooloo jógee tuddee seen bopp xaadimatul quraan kon turu yaay booy bi mi ngi bëgg a law waaye ndax li yaay booy liggéeyoon ndax dinañ ko mën a liggéey waaw kooku mooy Seyda Mariama yaay booy daal li ñu mën a wax ci moom bari na ñoo xamante ne mën nañ ko cee wax ku bëggoon nit la soo ne salaamualeykum li muy njëkk def mooy rey gàtt ndax bëgg nga yendu boo ñëwee li muy njëkk a def mooy rey gàtt ndax téye la nga yendu ndax bëgg nit ku doon dimbalante la it ak jullit yi kon moom dund na alxuraan dund na li sëriñam ndax moom baay baayam la de def na ko baay waaye da koo defoon sëriñ def ko baay def ko royukaay da doon dund ak moom dund taalibe ak sëriñam dund doom ak pàppa waaye dund royukaay it fi papaam doon teg tànkam loolu la yaay booy doon def président wax na ko léegi nee yaay booy buggutoon kenn gisutoon kenn xamutoon dara buggutoon dara lu dul alxuraan ak papaam kon loolu amoon na solo xam naa nag ci gàttal li duuf si nag bi mu mënuñ ko wax waaye ñu ngi taxawal fii pour jox ñeneen ñi ñoom tam ñu barkeelu ci di sant nag association Maam ay Aysatu Jànq muy amaat ñu jigéen ñu jàmbaar lañ jigéen ñu baax lañ jigéen ñu bëgg diine lañ jigéen ñu jàppalante lañ jigéen ñu bëgg pays bi lañ ñu bëgg njaboot gi lañ wax dëgg yàlla kenn mënu leen a fay li ko commencé ci marraine bi président d'honneur bi ba ci Seyda Yuma mii mooy kaati am bi defe naa moom ngeen di wax secrétaire xaw ma général kii ma la la moom la du nelaw guddi du nelaw bëccëg toujours mu ngi audio ngir amaat di liggéey ngir amaat xitmaal pay bi ndax xitmaal pay bi xitmaal sa bopp la ndax pay bi ci boppam faydu bi ci boppam balu teng la booy dóor ci biir su bondee day dellu si ci yow balu teng boo ko dóoree ci biir day bonde dellu si ci yow noonu la faydu bi mel njabootu Mawlaana Cheikh Ibrahima gi loo ci def rek ci yow lay dellu waat kon loo ci def rek sa bopp nga ko defal ñu ngi ñaan yàlla may ñu kàttan may ñu man-man ak ndimbal ak ay milliards yu baree baree bare bañ man koo def ci faydu bii ci barke Maulana Cheikh Ibrahima Niass waa Amad daal loolu lañ doon ñaan te it bés bi ñaan nañ yàlla nee nañ fas ko yéene di ko taxawal wii mars bu nekk incha allah nee ñu ngi ñaan sëriñ bi yaa fi teewal tey sa maam ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu ba nga xam ne dañuy dem ba dootuñu xaj fii ba di ko defee grand théâtre raïsa loolu la wax kon mën na nekk te yal na nekk te day nekk ndax bàyyi alxuraan la kanam lay jëm waaye du dellu ginnaaw insha bi te loolu ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ko ah soxna si mën nga joxe addiya bi kon xam naa ne ñi ngi tëjee fii suñu waxtaan eh, bi jaahi mawla rasul bi jaahi mawlana rasulillahi salallahu alayhi wa sallama eh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa alhamdulilahi rabbil alamin waaw baat ci gàttal rek ñoo xaw a sori nag. Seydou Mbaye ñoom ñoo la guddal fan yi may wér yàlla defal ko maam Asou Diankha yëpp te ñun ñëpp su gërëm bu baax di am tuuti rek yenn. niqaat yoo xam ne dañ ko jëloon bi ngay wax eh, di ci jiital ci sa wax yaa ngi gërëm sunu yaay sunu sëriñ Sayda Aïcha bintu Cheikh Ibrahima Niass mi nga xam ne moom mooy marraine maam Astou Diankha eh, maam Astou Diankha boobu nga xam ne képp ku bëgg lu baax rek yaa ngi ci biir du ñu wax képp kuy taalibe Cheikh Ibrahim du ñu wax képp kuy jullit waaye dañ naan képp ku bëgg lu baax ndax mama su jànqa moom la yàlla may doom joo xamante ni li waykat bi doon wax naan xoolal ci jaww ji foo xool gis fa barxam duune jaww ji ngay xool di gis barxam waaye jaww joo xool danga fa gis jeexatali barxam kon nag yal nañu yàlla fayal soxna su baax soos noonu yaa ngi wax ci sa biir wax Cheikh Abdallahi ak teraanga yi nga xam ne séq na kook yow wax naa sànq ne Cheikh Mariam benn nit rek la naw moom la bëgg a mel comme moom mooy Cheikh Ibrahima Niass waaye Cheikh Abdallahi mi tam benn nit rek la naw moom la bëgg a nduru mooy xaadimatul xuraan jataay bi sànq la ko yëg daf ne ma sax jarul ngay wax dara man la oo oh, mu ne ma foo nekk dafa mel ni yaa ngi ci programme de ma ne ko man de maa ngi nii kër yaay booy Seyda mu ne ma lu xew foofu ma ne ko wii mars bi la ñuy màggal fii waaye nag dañ koo yéex a jàpp mu ne ma man di yëguma ko fekk moom dafa nekkoon Maroc ci papaam barki dem ci guddi la ñëw dem na wuutuñu ci suñu sëriñ suñu soppe wakiri daat ni ñuy waxee ci Cheikh moom tamit fii la daan toog ànd ceeg moom kon démb mooy tey Baba Lamine mi ngi nii toog Cheikh Amara mu ngi nii toog kon démb mooy tey te nii lañ daan def di xool gauche di xool droite di leen di gis te ku gis tey rek da nga xam ne gauche ak droite ñoom ñaar ngi fi ba léegi. ñu ngi lay gërëm ci loolu euh, yaa ngi wax euh, Cheikha Mariam ak Alquran Cheikha Mariam mën nañoo wax li araab yi waxoon ci Cheikh Ibrahima ñes arab yi dañoo waxoon ne Cheikh Ibrahima Niass masjid mutaharrik la fu ko julli fekk rek dana taxaw julli dafay tardel ay avion ci aéroport yi pour julli bu waxtu julli jotee dina wax ne de nañ kàbbar ñu julli fii nii ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak moom yépp sedd nañ loolu bañ dem ba naar yi na Cheikh Ibrahima Niass daal masjid mutaharrik la jumaa juy déplacé wu la waaye Cheikh Mariam tamit alquran la buy dox fu mu nekk rek alquran la ndax moom lay jëfee moom lay waxee wax nga ñu ci Kossy ne ma adraka ma hiya Kossy Kossy nag barab la boo xamante ni euh, barabu nangu ñaan la comme ni nga ko waxee doy na rek ñu ne soxna si nga xam ne moom la ñuy màggal tey Kossy lu juddoo loolu rek doyoon na ñu ne la fii kon barabu nangu ñaan la ndax nit ñaa ngi dem ci barab yoo xam ne yeneen nit a fa juddoo rek euh, di leen di màggal di leen di fetal ñoo xam ne sax duñ ay jullit wala leneen waaye doy nañu ne la Kossy fii la Cheikha Mariam Xaadimatul Quran gane àdduna kon ci barkeem boo demee tawasul ci barkeem soxla yi dina fay te li nga wax ni yaakaar naa ñu bëri fii nii am nañ ci ku ci nekk rek am nga ci bés boo xam ne jaar nga fa ak Kossy yaa ngi waxaat ci bàyyi li mu waxoon ci jigéen ñi ne leen yaa ayyatuha albanaatu zaaximna ila ni ula amma bi abdaanin fala ndeysaan loo xam ne eh, xaadimatul quran heure bu daan wax ak jigéen ñi loolu la leen di wax bàyyi mu ne na ngeen regretloo góor ñi ci kawel itte pare mais pas regretloo ci ay takkaay yu cher moo tax moom heure lu mu am rek dafay jàpp ne daf ko war a def ci ci ci yàlla xaar yàlla Eh, yaa ngi wax ne tuddee nañ ko xaadimatul quran mooy liñ doon wax ne alquran buy dox la ndax itteem yëpp dafay liggéeyal alquran amul benn bés booy ñëw fekk cheikha man nga ko fekk ci lalan bi mu gëmmu de benn xale di jàng alquran bu ko yàqee mu ne ko ah, yaa ngi yàq alquran ji rek ruseewu ko kenn te loolu foog naa ñi fi toog ñaar xam nañ loolu ci moom eh, yaa ngi wax ci bëggam mbëggeelam ci nit ñi cofeelam ci nit ñi xaadimatul quran soo ñëwaan fii da koy fekk ne xale yi moom a xale yi ñooy bokk nekk waaw kum ci gisul guddi daf lay oo ki nga xam ne sax dafa séq ak moom yenn yi bu seetaanee télé xam ne lii kat diw laa ci war a wax ak dafay wax ne diw yaa ngi seetaan télé nangam nga ne ko déedéet mu ne la seetaanal télé bi boo seetaanee tele ba pare ñu waxtaan ku bëggoon lu baax la ku bëggoon nit ku baax la moo tax boo waxee loolu danañ danañ ko dëggal benn bés daf ma mos yoon yónni ma dem Mauritanie bi ma ñëwee am lu ma ko fa indil ay teraanga li may wax eh, ci tabeem ñépp mën nañ ko seede ma oo ko na ko ah xaadimatul quran kii de def na nangam ak nangam mu ne ma jëlal nangam ma jël nangam mu ne ma joxal diw nangam joxal diw nàngam joxal diw nangam ma jox ko bi ma ñëwee bi may ñëw ma jàll ma jàll bac mu ma ne ma foo toll ma ne ko jàll naa bac soxla boobu keroog bi may yónni pour wax la itte yaa booy Seyda soxla bi lu yàkkamti woon la mu may utal billet pour ma dem Mourtani mu war billet yi mu am yëpp bi mu am tey ci guddi laa fi war a jugee suba ci guddi laay egg Mourtani mooy Royal Air Maroc da ngay départ fii dem Casa jugee Casa dem Nouakchott mu toog toog xalaat ba ci kanam mu ne ma kaay nga jël sama oto bi ma boole laa sama chauffeur mu dem Ablaye Diallo moom mooy boobu. bi ma ko ooyee ci suba gi ne ko jàll naa ban heure bu nekk pour wax la cofeet bi muy am ci doomu aadama heure bu nekk mu may oo ne ma foo toll mu ne ma maa ngi lay xaar añ man ak yow ay añ bokk añ boobu mi ngi dëkk sacré fii nii bi mu ñëwee ñi añ ba pare ma ne ko ah lii nga ma yónni woon ma jox ko ko mu yëkkatiwaat lu am solo ne ma am ma ne ko déet joxoon nga ma mu ne bàyyi nee na jula saabu shuraka heure boo ko waxaan ñii may wax ñi ñëpp xam nañ loolu ci moom dafa lay yónni demal ville jëlal ma nangam nga jël ko mu ne la jox naa la nangam nga ñëwaat mu joxaat la nga ne ko yaa jox nga ma de jërëjëf yal na yàlla yokk mu mu lay dolli mu naan lay hal min mazidin nga naan koy wala day naa mu lay dolli rek mën na laa jox lépp ba mu jeex yal na ñu ko yàlla fayal te yàlla yokk leeram benn bés photocopie chèque bi dama ko téye ba léegi ndax jamono dana ñëw boo waxee nit dana la weddi chèque bi mu yónni ma ñu ngi inauguré jumaa Medina bi ci gàmmu boobu demal ci banque CBAO bi nekk kaw Kaolack oo na ki nekkoon Dakar mu ne ko yónneel mu dem Kaolack bu ma demee waa ji jox ma xaalis bi 2 millions la ma ñëw bi ma ñëwee mu ne ma maa ngi sol drap mu ne ma baraam ana amaana bi ma ne ko mu ngi nii léegi léegi léegi léegi daf ma daan wax barhaamu naa waaw wala léegi léegi mu ne ma fii ka xaamu mu ne ma ana amaana bi ma ne ko mu ngi nii mu ne ma baax na bi nit ñi génnee mu ne oo leen ma baraam sekk mu ñëw. bi ma ñëwee mu ne ma tëjal buntu bi ma tëj buntu mu ne ma ool ma diw ma oo ko mu ñëw mu ne ma ana amaana bi ma ne ko mu ngi nii mu ne ma jox ko ana ko ñës ya tabe yal na yàlla guddal sa fan defu ko sax te bés boobu noonu waa kër gi ñu ngi toog di soxla dépasse buñ togg waaye moom lim am jox na ko yàlla balaa jant bi so am benn kilifa bu ñëw ne ko dañ maa yónni ci yow euh, kilifa am xale bu ñëw ne ko kilifa sàngam moom ma yónni ci yow mu ne ko ah lu mu wax mu génnee benn enveloppe dix mille dollars jox ko mu ne ma ana baraam ma ne ko maa ngi nii mu ne ma man jaa bi xasanatin ma ne ko falahu ashru ne ma ashru ñëwagul de ashru yi ñëwagul ma ne ko kon ashru yi ñëw pour wax la ne moom alquran rek la doon waxee benn bés dama ne ko yaa booy yàlla nga fi yàgg lool lool lool te te insha allahu yàlla dina def loolu ndax yàlla moo wax ci alquran ne wa amma ma yanfau naas fa yamkutu fil ard déglul rek ni mu déggee alquran mu ne ma ah yàlla moo wax loolu de waaye laay joj imaam Assane moo tax gëmatuma ko de man tamit lu ma wax ma ne teg bés bi ma toog àjjuma ci waxtu bi may xadara ba pare rek ñu tàggee ñi Serigne Mamoun ah ma toog sama téléphone bi sonné ma gis muy yàggooy mu ne ma li ñuy wax dëgg la ma ne ko du dëgg dañuy wax rek xam naa dëgg la waaye du jëlee ne dëgg bi ci man la te moom moo ma gën a xam ne dëgg la ma jógee fa ñëw ma fekk ko fii ci salle bi ma jàkkaarloog moom sama xel mi ñëw ci laaye ji wa am maamaa yan faaw naas fay ko su fil ardi ñemetu ñemewuma koo wax ndax ba ma ne ko yàlla nee na képp kuy jëriñ nit ñi da ngay yàgg ci kaw suuf mu ne ma laaye jooj imaam Assane moo tax léegi mocuma ko pour wax la ne moom nit kuy def lu baax rek moom nga koy defaral bëgg na nit ku nekk muy def lu baax kon buñ toogoon fii ba suba di wax ci Cheikh Mariam xaadimatul quran du jeex te ku ci nekk rek yaa ngi xaaral ma génnee mooyu nekk ci man pour ki téye micro bi xam ne moom waxul dara ku ci nekk rek bu ñu la joxoon da nga xam lan ngay wax. dama fekkee benn bés euh, Seyda Marème mii nañ ko ñaan yàlla yàlla guddal fan may ko hmm? directeur Sénélec ebal ko euh, kii Cissé Mokhtar Cissé yebal ko mu ñëw ba ñëwee mu indil ko ay dons yu bëri mu ne ko yaay booy directeur Sénélec moom mu wax ma indil la lii nangam ak nangam. niñ ko ko joxee noonu la ko séddalee ba mu jeex amul lu des ci kër gi kere te pourtant am na xale yi fi nekk yu ko soxla waaye mu ne am na ñu ko gën a soxla nañ leen ko yóbbul da toog ak moom li ma lay wax nii man naam ñii xam nañ ci lu bari te nitam du ko yemale kenn dafa am benn weeru koor mu am ay traga yu muy def ma toog yaay booy ci boppam moo moo tudd sa tur mu ne ah lii de lu rëy la nitam du ko emale kenn kenn mënta tax ba nga xam ne na na nitam nekk ca digg àll ba ca tool yi day toog rek ne la waa yow ana diw ci ci euh, fanam yu mujj yi fii dangay toog wala ci at bu mujj bi da ngay toog mu ne la benn damaa toog ma ne ko yaa booy oo mu ne ma waaw ana Kabir fay sax ci boppam ma ne ko Kabir fay de dem na bay dem di neex mu ne ma fu mu dem ma ne ko xanaa ci Baye mu ne ma Baye man ma ne ko Baye Ñas man ma yow yaa ñeme yàlla xam nga moom bu la miinee da ngeen daan waxtaan ci waxtaan yu bëri yi nii ci yoo xam ne nii euh, macha allah daal moo tax yal nañu ko yàlla fayal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na barkeem des fii nii te barke bi mi ngi fiy des ndax daara yi mi ngi yokk te fii ba daara yi mi ngi yokk rek barke bi mi ngi fii des alxuraan ñii ñëpp ngay gis ci ay daaraam lañ jóge te am na ñeneen ñoo xam ne ñëwul te daara yi am na ba Europe am na ba Amérique am na ba asi kon nag bu ñu toogoon ba fii dëgg-dëgg di wax ci sunu yaay dafay mel ni koo xam ne ci sa bopp ngay wax ndax sunu yaay la ku ci nekk ci ñun rek li may wax buñ la joxee rek wax def nga ak moom loo xamante ni danga naan non non non lii du dëgg. mu ngi bëgg bàyyi bëgg Cheikh Ibrahim bëgg Cheikh Ibrahim boo xam ne dafa ma mos wax fii mu ne ma képp ku fi ñëwati ci jugee Medina am jafe-jafe nag ma ko wax ma ne ko baax na am benn doomu sëñ daam bu bu lakk euh, Seyda Oumou Kazoom ñu indi ko fii mu am fi 24 heures waxuma ko ba ma ñëwee wax ko mu ne ma kañ la ñëw mu ne ko am na fi 24 heures nu ma yow yaa bon wax naa la ko nangam ak na ma ne ko ah yaa booy am na nouvelle yoo xam ne bëgguma la koo wax noonu mu ne ma sa yoon nekku ci wax ma ko bés bu yàlla sàkk buuli añ lañ koy defaral mu dem buuli reer ndékki téléphone am fu mu toll bi mu dogee ay ay côté euh, timis doomam bi oo ma wax ma ko ne ma wax ko yaay booy mu ne ko ba ilaa yow mi din ko wax ma ñëw ci moom ne ko yaay booy doo oote hôpital mu ne ah, ñoo ñi ngi ci jàmm ma ne ko te nga leen oo rek ñes bu Abdoulaye oo sa añ bi dem na sa reer baa ngi waaj a dem mu ne ma ñu ngi ci jàmm ma jël téléphone bi composé ne ko allo waaw Moustapha na def ñes waaw xanaa yaa booy ngi nii xaar ma jox la ko ma jox ko ko mu wax ak moom mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi mu ne ko béy mu ne ma xanaa ko déedéet yëguma ko woon waaye damaa bëggoon rek nga oo leen man ma kon de lii la yàlla def pour wan la mbëggeelam ci mbokk mbëggeelam ci mbokk bu ngeen toogoon fii daf lay waxtaanal waxtaan léegi-léegi fajar la lay teg ngeen di waxtaan li may wax nii yëpp xam naa ni ñi ñoo ma ko gën a xam ndax liñ ci am bëri na billaahi lazi laa ilaaha illaa dama musa tëdd ba diggu guddi ma am benn dog bu ma gént Cheikh Adi ma ko jox billaahi wallaahi tallaahi ma yeewu dem julli ji fajar maa ngi Dakar Cheikh départ na fii nii ay 3 heures du matin dem midi bi mu taxawee ci xabru bi sama téléphone sonné julli nañ fajar ba pare moo xool muy numéro yaa booy ma dagg sama kurus bi parce que damay wérdu ki may wérdu mi ngi nii ma dagg sama kurus ma ne ko billaahi lazi dama dama ko uyu rek mu ne ma baraam maa ngi nii ci xabru baay ma ne ko billaahi wallaahi tallaahi yaa booy sama gént gi dëgg la mu ne ma loo gént ma ne ko damaa gént nga may jox benn dog naan may haza ataawu naa fam nun aw imsik bi xayri wax ma adat bi ma koy def mu ne ma loolu dañ ci am ndigal ndax heure bu nekk dangay ngay dégg ma koy def yal nañu ci yal nañu ko yàlla fayal ñu ngi ndokkee ñëpp suñ toogoon fii bu suba billahi di yi mooy tooy rek waaye ñu jox mbooloo mi di ci jiital conférencière bi euh, on va commencer d'abord euh, nuyu xalifa bi Cheikh Mahi xaadimul umma xalifatul fayda tijaaniya ma teg ci suñ nijaay suñ sëriñ suñ soppe Baba Lamine yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla may wér yàlla dellu si jàmm ci lu mu gën a gaawee liggéey bi nga xam ne kenn mënu ko ci comme ni ko xalifa bi waxoon ah Cheikh a vraiment moom lañ koy xoolee dafa mel ni daal Baba moo teew waaye owoon naa ko mu ne dafa xaw a sonn tuuti ma ne ko na ku ñëw utu la parce que jotaay bi waaw ma ne ko bi baaba moo ko moom waaw ma ne fi mu nekk comme que baaba moo ko moom te yaa ngi fi man amu fi dara mooy wax jox la kàddu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah hada atauna famnun aw amsik bi gayri xisaab cheikh a nii la daan ubbee su ubbee ba pare lan lan laay wax sax ak yaa ko yaay booy waxal rek waaw léegi eh, ñun ñi ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi yàlla na ko yàlla dëgëral te ma tëleel ko liggéey bi nga xamante ne moom la sumb ci barke alquraan karim man nag dama fi teew ak ay teewaay yu bari benn bu njëkk bi mooy dama teew fii comme doom ndaxte yaay booy ci boppam moo ne ma man ba ma amee ñeent fukki fan la ma nangoo ci sama yaay kon ku la yore <laughs> ñeent fukki fan ba ba nga màgg kooku mooy sa yaay du dëgg ñun nag li ñuy wax duñu wax ne ay kii moom mu wax ne ma yaay booy nee na nàngam wala lii ñun dañuy wax ne yaay booy nee na direct parce que euh, ñun luñ dund ak moom yaakaar naa am na ay doomam yi toog fii sax dunduñ ak moom noonu parce que bañ nekkee xale yu ndaw am sept ans dañ commencé di ànd ak moom di tukki fu nekk ci àddina bi fu nekk tukki nañ ko jàng nañ alxuraan fu nekk ci biir avion yi ci bateau yi ci gaal yi ci terrain yi ci restaurant yi ci fépp kon su ñu joxee pour ñuy wax ci yaay booy yaakaar naa ñun xam nañ li li li ñu war a wax waaw léegi lu ñuy wax ci yaay booy ci askan bi la ñuy wax fi mbokk loolu ñëpp xam nañ ku ne bàyyi ne yaay mooy rek xalaas dañuy wax wal lan dañuy wax ne yaay mooy ak alxuraan ñëpp xam nañ ni mel ak alxuraan dañuy wax wax ci baax bi yaay xam ne ñëpp xam nañ ne ku baax la dañuy wax ci tawe bi yaay mooy xam nañ ne ñëpp xam nañ ne ku tabe la dañuy wax ci euh, am fit ñeme nekk góor am itte loolu ñëpp xam nañ itam fu mu fu mu tollu dañuy wax ci euh, jàmbar dañuy wax ci mën a baale loo wax rek kooye boo wax rek mën nañ ci wax ba suba du jeex waaye dañuy gàttal wax bi rek di wax ne dañuy wax comme li ko Cheikh Abdallahi waxoon mu ne fa Mariamu bintu Cheikh yi maanan wa suuratan fa xasbuki min kulli almafaaxir ida faxra benn gorom mooy borom kër bajan xawa mu ne Seyda Mariam mii doomu bàyyi dëggantaan la ci jëmm ak maana yow yaa mooy nag lii rek doy na la pour tiitar ak pour kër loolu lan lañ ciy teg leneen tey ñun lépp luñ mun a wax rek mun nañ li ma tudd nii yëpp bu nekk mun naa ci indi ay exemple exemple yaay booy dafa jamee coono mun na génn ci këram ñu génn huit heures dix heures ci guddi lay ñëwaat ci kër gi ñeme xiif doo dégg mukk mu jàmmat ba pare ñeme méttit ñeme méttit mos nañ toog benn bés ñu indil ko batterie oto batterie dafa yàqu woon dafa amoon ittee affaire yi du bàyyi dara jaaykati këriñ bi sax dama naan la bindal ma numéro fii ci agenda bi soo ko bindee ba pare dafay topp action nag da koy topp ba mu mat mu ne ah, anam ko mu door a ñu jëndal ko batterie oto batterie bi ñu indi ko boobu ñu ngi toog Malick si ci euh, salle bi mu ne ma xool batterie bi Ali May am na benn taalibeem bu fi nekkoon bi yor Ali May yàlla na ko yàlla yaram moom génn àddina mu yëkkati euh, batterie bi fekk ni mu ko yëkkatee baaxut mu yëkkati ko rek ak batterie bi daanu rek dal ci baaraam baaraam bu mag bi baaraam bi commencé naaj yaa may nekkul foofu di jàmmat de wala mu dóor ko wala dafa ne ay jeex na après mu ne indi ma parfum ñu indi parfum def ko ci méttit bu métti man su fekkoon man la waaye ji dinaa ko xët yaa ngi dégg naa ne ko yaa ëppal waay yaa dem dayoo waaye loolu yëpp waxu ko dafa ne ay Ali gaañ nga ma loolu rek la wax yaa ngi pour wone la dafa ñemee coono ñemee méttit ba pare mun a mun a mun a baale ñun amuñ liñ koy fay sànq nag li yëngal sama xol dëgg mooy asi kii bu teg nii bi asi teg nii euh, ba sama doom bi di tari Cheikh ki ma tuddee ci ci la doon ubbi kaamil bi ba xale bi tare ba pare mu ne aasi boobu mi ngi aasi mi ngi toog ba yaxawaa mi ngi toog mu ne Cheikh Abdullahi yow de wàccoon ak yow man maa la yar jàngal la alquran nga jàng ba pare ñëw di ma jàngaleel ma takkal la jabar ngénteel la ko nga tuddee ma doom bi nga jàngal doom ba mokk alquran nga indil ma ko fii tey yow wàccoo nga ak man loolu loolu lu rëy la ci ñun duñ ko fàtte mukk ci saal bi fii la woon Mermoz yaakaar naa as yaa kon yaay mooy suñ toogee di wax xool yi dafay dafay tooy rek dañuy bañ a dekkal ay naqar wala ñi ñi ñi ñi kii daal waaye daal luñ mën a wax daal doomu Baye Niass xàqan la di Baye nekkoon ci la nekk ba uy ji boromam liggéeyam boobu nag insha allahu taala dafay continuer ba ilaa yawm alqiyamati insha allahu gisa xamaguñ sax yaay booy mooy kan nañ dem jamono yi nañ wan kan mooy yaay booy ba nga xamante ne ñun sax ñun suñ bopp nañ gis kenn koo xam ne dina toog di wax ci moom loo xam ne sax ñun xamuñ ko kon yaay booy euh, dafa amoon itte itte boo xam ne maa ngi fàttaliku am na at buñ toog ñuy teg naar yi rek ci télévision yi ñuy jàng benn naar mooy jàng xale yi war ko ni muy uyu muy xale yi di di di di di di di répété ak moom waaye mu ne ñii nii ñii sama xale yi ñoo leen dàq jàng pourquoi ñuy teg naar yi fii nii te doomu Sénégal yi nekk fii mun a jàng comme naar li ñuy jàng mu taal otoom dem ci euh, RTS ba mu demee mu gis RTS moom yaay booy dafay ñeme amul kenn koo xamante ne boobu Babacar Diagne sax nekkagul euh, directeur bi boobu keneen moom dama fàtte turam amul nooy amul maqaama booy toll te du mën a du du wax ak du wax ak yow amul benn complexe lim nekk ci la nekk daf koy tiitaroo fu mu dem tamit daf koy imposer fu mu egg dina ne ana xale yi ala ahlan wa sahlan ñu commencé eh diw kaay jàng am na ñoo xamante ne ñoom dañuy am complexe loolu te ci loolu lañuy liggéey moom nag mos na am complexe moom mos na ànd ak moom ba ci benn ministre ministre bi wax mu ne ko da ngay fen pare mu ne ko da ngay fen kii nii mu ne ko da fen laa wax su fekkoon ñoo xam ne ay caaxaankat lañ liñ buggoon yëpp defal dañ leen koy defal waaye ñun comme que alxuraan la ñuy liggéeyal moo tax ngeen xeeb ni waaye ñun duñ xeeb suñ bopp waaw fa in yakfur biha haulaay faqad waktalna biha qawman laysu biha bi kafirin moom nag moom moom mooy mara mutakallima bil quran mas nañ dem moo bañ demee chariqa ñi ñëw dugg ci benn kër rek toog fekk borom kër gi nekk fi waa ji ba mu mu ne waa kan moom ubbil ñii dugg commencé di mer seytaane ne ko nahnu maa ji'naa li nufsida fil ardi wa maa kunnaa saariqiin ñun ñëwuñ pour yàq fii dara te ñun duñ ay sàcc waa ji daal di xaw a wàcc noonu tuuti boobu man ak Aïcha Mahe ñoo àndoon waa ji nekk foofu neexal ko pour wan la rek yaay booy itte bi mu am ci alquran itte bi mu am ci nit ñi itte bi mu am tamit ci xale yi nga xam ne moom lañ ko jox yaa may mooy tëdd ak ay lu ma fukki xale ci benn néeg boo xam ne bokkut ak ñoom dara xamul leen ñu ngi tëdd ba bër set loolu yombul de ah kon yaay booy daal mooy yaay booy rek ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay leeram yàlla taas ñu ci barkeem damay tëj rek ak benn xadis buy waaye ne tamit loolu bokk na ci sër yaay booy yi nga xamante ne moo ko may najaax bi ak réussite bii nii dafa am ay jigéen yu mos ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa ki leen jiite mooy Asma bint Yazid ba ñëwee ñu ne ko yonent bi sallallahu alayhi man man la jigéen yi yebal pour ma ñëw wax seen li ñuy tawat mu ne ko lan la mu ne ko nee na góor yi ñoom dañuy dem jihaad suñ ootee jihaad góor yi rek ñoom ñooy dem suñ demee jihaad xeex su ñuy ñëw ñu indaale màng su fekkee tamit dañoo dee yàlla wërsëgal leen ci ci ci ci shahada ñu am shahada waaye ñun jigéen ñun lan lañ am mu ne leen yéen seen jihaad moom mooy topp seen jëkkër yi jox leen seen àq yëpp ba mu mat sëkk yaay moom yaakaar naa jàngale na ko fii képp koo xam ne nekk na fii nii ci moom ba mu maye la nga sëy su lay yóbbu dina la yëpp wax la ay wax <laughs> waaw yeb la yar la ba nga xamante ne soo demee sa boroom kër lépp yaa ni lu ko neex rek ci ngay ci ci ci ngay ci ngay ci ngay nekk kon loolu bokk na ci secret yi nga xam ne yàlla defal na ko Cheikha pour mu mun a am réussite bi ñëw ci Dakar nag réussite yombul de yow ci Dakar dagaar nga xam ne ay puukare rek moo fi nekk ay man maay doomu diw wala kii mooy Cheikh nag moom li mu doon tiitaroo moom mooy alxuraanam bi fu mu dem rek moom lay moom lay tiitaroo palais sax dañ fay jàng alxuraan pale et clinique nekk amul fu jàngul alxuraan foo kii rek mu ñëw leen jàng leen macha allah lépp lépp lépp lépp lépp ko ci doon xëy rek mooy bëgg alxuraan topp Euh, yoon bi nga xamante ne moom la ko waajuram euh, tracé loon mus cee wàcc benn yoon kon Cheikh daal ñun amel nañ ko jukkal boo xamante ne incha allah ba ilaa yawmil qiyaama tant que ñu ngi moom suñ bakkan bi incha allah lépp lu ñuy def rek moom mooy nekk ci biir incha allahu taala te benn gisagu leen dara de wallahi gisaguñ dara gisaguñ dara waa gisaguñ dara ci kanam li nekk ci kanam moom mooy moom mooy raw ñi ngi wallaay kontaan bu baax a baax a baax ci euh, teew bi ñu fi teew moom nag dama tàmmut ay wax ci ay mbooloo ni <laughs> ñi kontaan bu baax ci association bi wax dëgg yàlla itte bi ñu am ba créé journée bi ba nga xam ne dañ ciy delloo Seyda Mariam Jukkal kooku nag moom moo jaara dara la njëkk Sénégal suñu amee ñu war a tiitaroo ñii lañ war a tiitaroo waaye da ngay gis ci télé yi ñuy indi ay woykat wala ay fecckat ñooñu duñ ay référence référence référence mooy Cheikh Mariam ana mu defar soo laajee fecckat yi ñuy defar réellement jàngal diw fecc kii diw fii di naan loolu loolu du du avancé le dëkk waaye tey Cheikh Mariam ñi mu defar ñëpp góor ak jigéen ñëpp ñi ngi yore seen daara ñëpp même fekkee am na ñoo xam ne yoruñ daara sax waaye ñi ngi def ci daara parce que mën naa jàngale moom nekkul ne ku nekk moo ko mën waaye ku nekk rek ni nga ko mënee rek noonu rek nga koy defee am na ñoo xam ne seen dañuy gis koo xam ne mi ngi yore daara ñi leen ñi ñi ñiy dimbale comme Pafal par exemple mënul jàngale waaye macha allah loxoom duy jug mukk ci daara ji kon euh, Cheikh daal ay ay ay ay umma daal la defar cheikha umma waaw cheikha cheikha mariam umma tey sooy sooy sooy kii ku nekk tey fii nii ñu fi toog ñu bëri ñu ko xam ku nekk mën naa génne foto de man ak cheikha ñu ngi nii loolu loolu lan la loolu dafay wane rek dafa yaatu dafa baax dafa tabe dafa am itte ci nit ñi am itte ci lépp même même suy kaf sax dafay neex benn bés dañoo taxaw nii benn dof romb nii romb rek ne yaay ñaaw ak mu tourné mu ne kii kan lay waxal man de xam naa man ma te ay sami tamit ñaaw kon kii dafa dof <laughs> waaw yu bëri mën nañ <laughs> soo ko joxee xaalis bu ñaaw sax mu mu mu mu sànni ko kon dañuy jox suñ mag rek man nag maa fi teewal Baye Baye Lamine. parce que moom moo waroon ñëw wax dëgg yàlla yaram bi xaw a diis man tamit sama yaram dafa xaw a diis sax waaye ma ne ko man affaire Cheikh moom ko tànqam lu mukk xaaral ma dem lu ma ci fekkee rek mu nekk noonu moo tax ma ñëw teewal fii benn baay mu ngi leen di nuyu bu baax tamit di nuyu njaboot Seyda Mariam yëpp ci kaw ba ci suuf di di di di di kontaan tamit suñ mag bi benn Omar Kane moom mi nga xamante ne wax dëgg yàlla moom moo daan ànd ak Seyda avant daara bi di taxaw nii fu nekk moom moo daan ànd ak Seyda dem tukki Seyda dafa taxawu njabootam njabootam yi tamit taxawu ko dafa taxawu njabootam yëpp njabootam yi tamit taxawu ko benn ñu ànd nañ Saoudia ànd nañ Nigéria ay yoon ànd nañ Dubai moom moo doon wàcc di yéeg di dem di toppatoo di kii ba alhamdulilah. am na benn koor bi ak Asi mi ñu àndoon ak Asi. te boobu yaa ngi jàng a war a dëgg tamit macha allah gis nañ taxawaayam bu baax a baax ku gis Seyda nii rek droit rek soo xoolee nii di nga ko gis. kon loolu dafay wane ne yaay booy yaram mat na. Adja bi tamit macha allah bàyyi këram bàyyi léppam ñëw jël benn néeg fii mook borom këram toog dend ak waajuram. ah ak ay bëtam taxul waaye oh. bu am taxawaay la hmm. hmm. lu xew hmm. Zeyna dafa agsi rek wàcc bu ngeen jiw. mu ne ma aasikaay mu ñëw. man maa ngi lay seedeel na Zeyna di gërëm. desalu ma dara. mu ne man na xam naa ne wax yàlla. macha allah. teguñ ci ay weer bu gaañ. ndeysaan. xale bu baax a daal. yàlla na ko yàlla. amiin amiin Cheikh Baye damaa góorgóorlu baax ci alhamdulilah alhamdulilah. Cheikh daal suñu nekkee di wax nii daal ba suba du jeex waaye daal xam naa ne daal ku bëggoon lu baax la. ku bugg lu rafet la ku bugg lu neex la ku bugg lu xeeñ la ku bugg tamit boppam la bañ nekkee ci daara ji dañu naan wax dem leen yéen a ngi forox dem leen sangu am leen jënd leen jëndal saabu jëndal déodorant Rexona ah su ngeen sangul di xeeñ nii su ngeen màngee du ngeen kenn du leen xale yi du leen nopp de aji dem leen <laughs> ndeysaan lu lu nekk rek lu baax lay jël yaa bàyyi dafa ne xirli saxban fudala wa xirli min kulli cheyin xayrahu wa kulli yàlla nangul na loolu bàyyi waaye nangul na ko tamit cheikha cheikha lu gën rek lay jël suy jënd xar bu gën a baax lay jël suy jënd jën bu gën a baax lay jël suy jënd yére bu gën a baax lay jël bugul ànd ak kenn muy tolof-tolof bugul ànd ak kenn muy triste wala nangam benn bés dama daf maa fekk Dubai xam nga man vacance bu jot dama daan ñëw fii jàngale ma ne vacance bi daal damay damay jéem a pont xaaral ma jéem a daw dem Europe dem jéem a am foofu noonu dara tuuti léegi ma ne Cheikh su ma laajee kañ ngay dem dama naan ko man dawuma léegi dama soxla xaalis moo tax dawuma mu ne ma ñaata ngay soxla ma ne ko xam naa su ma amee daal un million cinq cent yooyu rek dinaa mën a dem vacance mu ne ma un million cinq cent ma ne ko waaw mu ne ma baax ah ñi toog ñi dem Qatar ñun ñaar ñoo àndoon man ak moom ñoo àndoon dem Qatar ba mu ne ma am na nga nag vacances maa ngi lay xaar mu compté deux mille cinq cent xaw ma trois mille dollars mu jox ma mu ne ma ñëwal vacances comme que lii rek moo la téewal léegi amatoo lay ma ne ko baax na naa jënd billet ñëw macha allah suñ toogee di wax baaxaayam fii wallahi fii la ñuy fanaan li ngi ñaan daal mooy yàlla lim fi def yàlla na sax yàlla na heure bu nekk yàlla nañ koy gis yàlla nañ ne léenee Cheikh moo ko moo ko def fii lee cheikha moo ko moom kii nii cheikha moo ko jàngal kii cheikha moo def ci moom lii yàlla nañ gis loolu ba ilaa yawmil qiyaamati insha allahu yàlla bu liggéeyam euh, sooy benn yoon yàlla yàlla lim fi bàyyi yàlla na continuer yàlla na yàlla boole ay njabootam def leen ñu nekk benn ñi ànd nekk benn euh, euh, benn benn say xam na dañuy dóorandoo di xàccandoo boobu moom su amee moom incha allahu taala te dafay am sax am na sax te ñu ngi ci yaa ngi dégg lépp dafay dafay dafay jaar dafay jaar yoon ñii gërëm nag ci siiba mii nga xam ne Seyda gërëm na ko suñ kanam moom abdul quran mooy jaamu al quran siiba may toog borom ba xam ne bu rafet bële kii ne cheikha daf ko gërëm suñ kanam gërëm boo xam ne gërëm bu bu mag a mag moom du moom kese moo fi ñëwoon moom ak ay moromam ñoo fi ñëwoon waaye moom li Cheikh a neex rek li li li li li neex Cheikh moo ko neex li Cheikh ne li li li li neex Cheikh moo ko neex li mu bëgg loolu la bëggu lu mu wax loolu la wax su ne ko toogal fii mu toog fii su ne ko defal lii mu def lii maa ngi fàttaliku keroog sax ba mu amee doom ba Cheikh a tuddee ko mu ne ko tuddee ko Cheikh Ibrahima Niass mu ne ko Cheikh Ibrahima Cheikh Mariam Cheikh Ibrahima Cheikh Mariam Niass mu ne mu ne doom bi noonu la tudd parce que daf koo gërëm daf koo gërëm bu baax a baax ñeneen ñi àndoon ñeneen ku nekk yaa ngi ci li nga nekk waaye moom mi ngi ci li nga xam ne moom la ko Cheikh a tegoon te incha loolu doo ci rëccu dara diñ ko gis di nga gis li nga bàyyi sa jàng bàyyi sa itte bàyyi sa mbokk bàyyi sa dëkk ñëw dend ak moom yàlla dina la ko won ba nga kontaan insha allahu taala lépp loo bëgg rek man mos naa ko wax ne ko bul dem jàngale ay cours bul dem fenn yow toogal fi la cheikh a teg ma ne ko gis nga ñi dem jàngale ay cours wala ñi dem ay kaamil wala ñi dem nangam li ñu am ci weer bi yow ci benn seconde nga koy am ok ñëpp a ñu ko mm, mm. ñu mm. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah ñëpp ñëpp wallaay wallaay kon ñu koy ñaanal bu baax yàlla dëgëral ko yàlla barkeel njabootam bi yàlla defal ko moom tamit ay daaru quran yu bari yu nekk Gaana yu nekk Allemagne yu nekk fu nekk ci àdduna bi ñuy gërëm tamit Cheikh Baye bu baax moom tamit wax dëgg yàlla mi ngi góorgóorlu bu baax a baax mu euh, ngi téye daara bi te di daara moom <laughs> ñun yaakaar naa xam nañ ci dara képp ku mën a bàyyi soxlaam ñëw ne man fii lii laay def nga toog ay xale wër la rek nga bugg a def ci ñoom seen bopp yi dara da ngay gis xale bu mel nii kii mel nii kii mel nii kii mel nii nga bugg boole ñoom ñëpp ñi baax nekk benn loolu yombut kon Cheikh Baye ñu ngi lay encouragé bu baax di la ñaanal yàlla dëgëral la yàlla barkeel la barkeel tamit sa njaboot fi nga bëggu daara bi egg tamit yàlla na ko yàlla dafa egg asi ñi ngi lay ñaanal tamit sa daara bi bu baax a baax yàlla barkel ko ak aja euh, daaru euh, al ihsan bi tahfiz al quran ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi ñaanal benn bu baax a baax wax dëgg yàlla mag bu baax la mag bu euh, vraiment bu jàpp tamit njàmboram la ñu nekkoon nañ Malick si dëkk nañ mais mosuñu noggatu waaw mosu ngi noggatu waaw mosu ngi noggatu abadan waaw mosu yi ñëw dóor mosu ñuy wax dara moom daal dafa jàppoon ñàmburam rek su demee liggéey ba ñëw dugg na ci biir néegam tëju te ay kurusam yenn saa soo koy nuyu sax def laan la nii sax am sa jot kon vraiment ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla barkeel njaboot yi yàlla dëgëral la barkeel la Euh, liggéey yaay booy bi fi nga bëgg mu egg tamit yàlla na ko yàlla yàlla gërëm tamit ñi nga xam ne bàyyi nañ seen itte yëpp ñoo toog fii euh, di taataan ci xéewal Cheikh Mariam yi ak jaar-jaaram yi ñi leen di ñaanal bu baax képp ku fi ñëw yàlla na yàlla faj sa aajo lépp ku feebar yàlla na la yàlla faj ku buggu alal yàlla na ko yàlla jox ku buggu jëkkër yàlla na la yàlla jox ku buggu doom yi barke yàlla na yàlla barkeel seen doom yëpp ci barke alquraan karim ku buggu place tamit yàlla na la yàlla dimbale jox la place bu baax a baax a baax incha allah te bu ànd ak tal ak wér ak euh, jàmm incha allah di gërëm tamit Barham Seck Barham Seck moom ñi koy gërëm waaw Barham Seck moom moom moom doom doomu yaay booy la kon ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. di ko di ko ñaanal. maanaam day xitma njabootu baay yëpp. ñëpp lay xitma. waaw loolu moom la yéen ci moom seen taxawaay. nga xam ne lu xew ci kër ngeen ñëw teew. ñuy sant yàlla di julli ci sangu-sang yi. di ñaanal ki ñu fi tax a teew tey mu Cheikh Mariam yàlla na yàlla yokk leeram te yal na ñu ko yàlla fayal te yal na ñu yàlla dimbale ba lépp lu mu mébétoon te jotu ko def. yàlla jàppale ñu ba ñu mën ko koo defal euh, yàlla jàppale ñu ba ñu jàppale ko ci njaboot gi ba mu kontaan ci ñun Cheikh nag li ñuy wax ci moom mooy rek euh, yaay la woon jàngalekat la woon euh, dimbalekatu jaamu yàlla yi la woon maa ngi fàttaliku benn bés sama ay xarit yoo xam ne maa ngi ñoom ñoo daan liggéey ñu def benn association tuddee ko soppee Cheikha Mariam Niass bu at mu jot dañuy dajale seen xaalis jëm jënd ay denrées ay détergent indi ci kër gi biñ ko njëkkee indi bi mu ko jëlee ñaanal leen bañ dem def ma ne indi nga ñi koy joxe dama indi ñu koy laaj ma jël big ak fooy di noté mun naa ma joxal diw joxal diw yaxal ba mu des ma ne ko lii ma bàyyi ko pour kër gi mu ne ma déedéet joxeel yëpp man lu ma am dama koy jox yàlla bu ma soxlaa laaj yàlla donc dundoom gi musul am dara mais musul ñàkk dara mu am tam benn bés euh, Cheikh Abdoulaye Ould Rabbani doomu sëriñam di ko jàngal ñëw fi bi mu ñëwee mu ne ma ñaata moo fi nekk pour nga yeewi ko ma xool muy quatre-vingt-cinq mille ma ne ko quatre-vingt-cinq mille de moo fi nekk ma jox ko mu xool mu wëññi ko ne ko lii tuuti na mu ne ko toogal xaar xaarul kenn de mais yàlla rek lay xaar ah kooku toog ñu toog toog ba ngoon sama benn doom bu baax bëgg ma rek te yàlla tax ñu koy wax dem Diaw ñëw indi enveloppe jox ko ko bi mu demee ñu ubbi enveloppe muy trois cent cinquante mille mu ne ma jox ko Abdoulaye ma ne ko yëpp mu ne ma yëpp ma jox ko ko. donc moom dundam lu mu mës a am rek pour jaamu yàlla yi la te yéemu la joxe dara lu mu am yow nga soxla ko daf la koy jox toog mus ta am dara waaye tamit mus na ñàkk dara mu doon tam ku bàyyi woon xel euh, njaboot gi ñu ko dénk maa ngi ko bu ñu mujjee dem màkk en mille 2019 umra bi ma ko ne ñaanalal njaboot gi mu ne ma sama njaboot ak njaboot gi ñu ma dénk nga xam ne ku bàyyi woon xel njaboot gi ñu ko dénkale te daf ñu daan wax ne man ñii ñooy sama njaboot ndax su ma yeewoo ñoom laay gis te yéen duma leen gis ndax boobu kenn ku nekk nga sa kër ñii dëkk ak moom ci kër gi mu ne ñii nga xam ne bu xëyee ñoom lay gis ñooñ ñooy njabootam mais pas ñun ñi nga xam ne ñun la jur mais bu xëyee du duñu gis donc ñooñ la jàppee comme njabootam ah bëggoon na nag euh, am na yu bari yu mébétoon te am na yu bari yoo xam ne bu ko fekkoon jamono ji dina ci def loolu daal mooy suñu itte yàlla yombalal ñu lim mébétoon ñu defal ko ko ah ñim fi bàyyi tam yàlla dimbale ñu ba lépp lu ko ci waroon ñun ñu mën koo taxawee loolu daal lañ ñaan yàlla di ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla nañ yàlla jàppale yàlla nañ yàlla taxaw te yàlla nañu yàlla jàppale ñun tam ba ñu gën a yóbbale ba ñu gën a jëmale liggéeyam kanam waaw. kon ñu ngi ñaanal dimbi balaa ñu tax dimbi duwaa kay il faut ñu ahlan wa sahlan euh, alhamdulilah alhamdulilah ahlan wa sahlan ummana ya shamsana ya dhillana ya badrana ya izzana يا مرحبا يا مرحبا مريم بنت شيخنا بشرى لنا إذ جئتنا جاء السرور والهنا يا مرحبا يا مرحبا أنت الحبيبة لنا أنت التي تسعدنا وأنت القدوة لنا يا مرحبا يا مرحبا يحفظك المولى لنا في صحة وفي غنى حتى تحقق المنى يا مرحبا يا مرحبا يحفظك المولى لنا في صحة وفي غنى حتى تحقق المنى يا مرحبا يا مرحبا يحفظك المولى لنا في صحة وفي غنى حتى تحقق المنى يا مرحبا يا مرحبا دار القرآن دارنا فيها درسنا ديننا بعد كتاب ربنا يا مرحبا يا مرحبا دين الرشاد والهدى دين العفاف والجدى قد فاز من به اهتدى يا مرحبا يا مرحبا صديقنا اختاره واختار طه حبه بشرى لمن يطيعه يا مرحبا يا مرحبا كتاب خالق الثرى خلوده لا يمترى فزنا به على الورى يا مرحبا يا مرحبا يا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم شفيع المصطفى ونعم لواسلة أزل الغم آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين asi dama am benn kër bu ma tabax Kaolack pareegut ñaan leen ma mu pare li ma ci yéene internat laa koy def internat pour jigéen ku tudd Cheikha Mariam rek moo fay jàng waaw ku tudd Cheikha Mariam rek mooy jàng déwén nag déwén nag Ah, ñi ngi ñaan yàlla ñu dajeewaat ñun ñëpp. comme niñ di reer. non dinañ reer. maam Asi ne ngeen dugg reer ci barki Cheikh Alla nii la daan def. déwén nag 8 mars bi incha allah ajjuma la ajjuma lay tombeek sax waaw déwén ajjuma lay tombeek 2024. kon nag jàpp na déwén 8 mars bi ajjuma lay tombeek vendredi la incha allah kon na ngeen. Hmm. waaw incha allah. mu ne nag ñu anticiper ñaan yëpp ngeen war nu ko mu am ci jàmm ndax dafay tombeek fekkee deuxième tour am na ci biir deuxième tour yi incha allahu rabbi euh, ñu ngi leen di yëgal tamit beneen conférence jigéen ñi ansaaru di le 26 mars ak gàmmu jëppal 13 mai incha allahu ci école Seyda Mariam ci Padoua 13 mai ñu ngi ko tuddee Thierno Assane Deme ak euh, Cheikh Omar Fouti ca Gambie asalaamaaleykum wa rahmatulah ban dog jàng Fatiha. Eh, ñu def Fatiha ñëpp salaatu Fatiha suñ paree nag suñ paree suñ paree ngeen dugg ci biir reer danaa nettali benn benn benn benn xisa rek ndax ngeen mën a dem reer yi. yaa booy damaa ñëw ne ko yaa booy li lay nit ñi di jëwee danaa la ko wax mu ne ma lan la ma ne ko nit ñi ne ku fi ñëw da nga koy wax xaaral añ bu xaaree añ nga ne ko xaaral reer bu xaaree reer nga ne ko xaaral ma may la paas. boo ko mayee paas nga ne ko fanaanal mu ne ma barke ma ne ko barke bàññi si loolu lañ day jëwee mu ma bàyyi naa ñu toog tuuti benn jigéen ñëw nuyu si mu defaat ko lool mu ne ana Baram Seck ma ne ko maa nii mu ne lii sama jikko la mënu ma ci